mais est-ce que bu fekkee dañuy mettre en place ay ay ay plan stratégique euh, d'une année à une autre ñu pare jàll indiwaat beneen plan sans sans sans la moindre euh, évaluation mm -hmm. est-ce que ça permet de de, de rendre efficace li nga xam ne moom mooy lutte contre contre les stupéfiants bi nga xam ne moom moom la ñuy def nii loolu c'est vrai que loolu loolu maa ngi koy wax léegi euh, on a buté sur les moyens mhm. les moyens n'ont pas suivi parce que plan stratégique bi nga xamante ne dañ ko tegoon phase bu njëkk bi moo doon la formation des acteurs parce que balaa nga combattre dara da koy jàng ba pare ñu jàngal la ko nga xam ko nga formé wu ci pour nga mën a am une maîtrise de la question pour boo demee ba nga xamante ne yaa ngi jàkkaarloo ak communauté yi nga mën leen a commencé di leen di leen euh, di leen di leen tàggat ca loola ñoom itamit par exemple ñi formé commencé woon nañ euh, au CILD di jël les bajenu gox yóbbu nañ leen Saly jël nañ les les juges les journalistes jël nañ euh, euh, les imams ñoom ñëpp je salue le le le le le le le le général Mokhtar Diop qui a fait un travail euh, considérable sur ce plan loolu yëpp def nañ ko dañu commencé woon di former les acteurs communautaires pour ñu mën a xam naka la ñuy relayer l'information dans les communautés mais après à un moment donné on a buté sur le manque de moyens le manque de moyens il est là moo tax may may lancer un appel encore une fois aux autorités pour ñu jàppale le CILD jàppale la société civile parce que itamit ñun bu ñu bëggee par exemple di dem di déployer sur le terrain il nous faut des moyens pour le faire Tout à fait. et on ne pas les bras croisés on est en train de faire euh, bon tant soit peu mm-hmm. aujourd'hui là où je vous parle avec le NEDICI on a on est on à Saraya on est à Saint-Louis on est à, Matam avec les Dara et tout ça donc nous ne restons pas les bras mais doon na gën a baax. communication bi nga xamante ne def nañ ko ci Covid 19 ba nga xamante ne ku yeewu yaa ngi naan tey ñaata kaa ñu am. Mm. ñu toll foofu ci drogue bi. parce que mu ngi def ay ravage énormes yow wax nga ko léegi mu ngi def ay ravages énormes et bu demee ba toucher le milieu scolaire. Ouais. alors là. il faut vraiment revenir à la case et discuter parce que tant qu'on discute de quelque chose. on va vers une solution. ce que yaakaaroon peut-être question boobu laa pas mal est-ce que yaakaaroon ne aussi le fait que dans cette lutte contre le stupéfiant ñu ñu am ay ay hauts cadres hautes personnalités yoo xam ne ils sont impliqués dans ça loolu est-ce que du du nekk luy bloquer la lutte parce que quelqu'un moi je vais citer un nom quelqu'un que Moustapha Cissé Lo il l'a dit. à l'Assemblée nationale la ko mm. waxee ñëpp dégg nañ ko mm. donc c'est li muy wax moom il avait l'air de savoir ce qu'il était en train de dire maintenant est-ce que dans dans ces conditions ñi nga xam ni ñoom ñoo ngànk daanaka réew mi mm. euh, qu'on retrouve là de des des des gens qui sont en les les les, les ce que loolu ça facilite la lutte aussi ndax xam nga day day waar nag parce que aussi la euh, la consommation de drogue la drogue la thématique des drogues de manière globale c'est un problème qui est très sensible mm-hmm. il faut que ay professionnels ñoo ko mën a liggéey ñoo ko mën a xam parce que tey jii par exemple à vouloir euh, si vous voulez communiquer sur les drogues et que vous ne maîtrisez pas mmh. les tenants et les aboutissants vous pouvez communiquer et donner par exemple euh, l'effet inverse au lieu nga amener la personne à ne pas à s'abstenir de consommer mën nga koy su fekkee internet installé nga une mauvaise communication mën nga ko amener dans la curiosité d'essayer de consommer loolu moo tax li nga wax nii am na solo. Mhm. il faudrait que ñu bàyyi ci xel. parce que y a des professionnels sur la question aujourd'hui le Sénégal avec le plan stratégique nous avons les meilleurs experts yoo xamante ne ils ont nous avons été à Saly pendant presque une année yoo xamante ne dañuy dem fii ñëw. dem école police dem ci et cetera on a on a occulté aucun aspect même les l'injonction thérapeutique dañu ko mettre en exergue C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tenant compte de, de, de, du surpeuplement des, popula des, des, des, populations carcérales, mhm. mais on a mis les options thérapeutiques. Mhm. Comme ça, aujourd'hui, Khaled Bohamentene, par exemple, il est à son 1er juin. C'est un délinquant primaire. Nous il y a beaucoup de mauvaises connexions. Il va nous revenir trois mois après il va nous revenir délinquant de quoi. day gën a grave day gën a grave parce que il va se faire des connexions. Euh, dans dans dans dans dans dans les prisons. kooku prison du place. non non non mhm. léegi li ñuy def mooy dañ koy dañuy dañu teg am aspect bu am importance mooy injonction thérapeutique bu ñu ko jàppee bu ñu ko andi ci juge bi. Mhm. juge bi daf koy jox injonction pour mu dem faju ji. Mhm. en coordination avec euh, l'additologue ñu yóbbu ko mu dem faju ji. bu ñu demee additologue bi day am fiche xale bi am fiche juge bi aussi am fiche. ñu di ko topp. Parce que, encore une fois, c'est un problème de santé publique. C'est des gens qui sont addicts. Mhm. Et l'addiction, malheureusement, il y a mhm. bu njëkk ba ku ku ku ku toxaan par exemple ku utiliser drogue ba am noomel dañ naan dafa dafa dañ koy yóbbu ci euh, service euh, euh, neurologique yeegi affaire yooyu mais c'est de l'addiction